de El Nino à l'instant. gis dëkk bi ñaan ñu àndu la ñuy bañoo te bañ ak làmmiñ sax dañuy laale te dañoo yàgg dund nañu bànneex te tiir mën nañu si tuus ah si wax de njëriñ gaa bëri bëri yow laa tànn ndax xarit yomb foo mën a ne ci kaw suuf yow men yow laay teewal sama diggante ak yow walaaxi si si xaju fa te jàmmi demanque fa xam naa ku nekk li mu yëg naxar yu dem ak yu tey ku nekk am na njëkk bi dara dul woon dara la ñu ànd di jaayande ba suñu laale kii dees di rayande donte bokkuñ woon père mère mais léegi moom la doon woowee xarit dafa jafe àndanda ma bare waaye neex nañu ràññee xarit dafa jafe xarit dëgg nga dund ñu si naxante waaye lépp ci dëgg la àndandoo su ndexee mu toog su mettee mu bala fa toppewu la fu la mere tooge la ràññee naa leen démb ndaxte ñun ñoo doon fowandoo bi ñëpp bàyyee baag bi mag yow de ñoo doon joowandoo domba tànk yuñ ma tàggal du te ñooy ma si dañ ko summi sànni saxul waaye ko la xam nga ne du ma sa deej soo ma déggul nekkul neex li ñuy dund bari dëgg kër ak koy embauché waaye alal du ko mën a fay el niño bu dem nag jàppal may bu tey kon sama xarit dëgg loo dina wax sama yaay boy dina wax sama baay boy dina wax sama loobo ne yaay sama xarit soo bëggee xam dëgg-dëgg ki la bëgg dëgg-dëgg dangay dundu dëgg-dëgg mbaa nga bay ko xarit dafa jafe on dëndëm bëre waaye neex nañu ràññee xarit dafa jafe on dëndëm bëre waaye neex nañu ràññee xarit dafa jafe dafa jàppe on danda mo bawre waaye neex nañu maa ngi bégam ñi fi jàpp ba mu yegg si fii voici le maxi déglu ma soo ko amul doo mën xam yaay kan my God El Nino xarit dafa jafe yow El Nino nu mu dema ah? tranquille nii box. mbaa lépp jaamu. way cool cool cool. El Nino bi fu mu jógee. yaa asalaamaaleykum maa ngi bëggee waa Galsen yëpp di bëggee waa Xar Yàlla waa jaawle ak waa TFM surtout aussi di la bëggee. rebëggee. rebëggee. <laughs> mosoo dégg boobu français de mu ngi si dictionnaire Larousse bi génn 2017. yaa raay rebëggee. rebëggee waaw da nga ne bëggee. daf la rebëggee. ok bëggee mi ngi ci dictionnaire Larousse bi. ok rebëggee day génn ci dictionnaire Larousse bi xool ko ci biir dégg nga sinon lépp jaam tranquille ni jaajëf El Nino moom fu mu jógee euh, bon El Nino mu ngi jógee depuis euh, collège mhm. bi may def quatrième mhm. euh, maa ngi doon def en espagnol mhm. ba léegi dama aayoon en espagnol aussi tamit sama waa classe tamit à chaque fois su may jël benn exemple nii je exemple comme El Nino puisque El Nino signifie l'enfant en espagnol aussi comme avec avec prof bi tamit devant la ma doon teg di ma wooyee El Nino. <laughs> El Nino. <laughs> léegi léegi moom la ma teg ci kanam. Uh-huh. ma wooyee El Nino aussi vous de très bonnes uh-huh. en espagnol. Uh-huh. léegi nag euh, moo bi neex ma ma koy bind sama cahier di ko bind tableau du genre sama sac léegi ma demee ba euh, may def bac ci la ma hip hop bi di commencé. ma amee bac noonu laa commencé def hip hop. léegi gars yi ne ma pour pourquoi pas aller chercher nga jël sa tour bi nga xam ne moom la gars yi. étiqueté depuis euh, au collège. man pourquoi pas ma jël El Nino def ko. El Nino yeah depuis combien de temps yaa ngi def hip hop. bon hip hop yàgg naa ko bëgg depuis may def quatrième. yeah waaw may def ah. quatrième laa commencé bindu mais. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. laa commencé dugg ci nekk ci affaire yi daal. mbaa bàyyiwoo jàng. non maa ngi université ba léegi. yaa ngi université lan ngay def université. droit laay def. droit ngay def ñaata année. Euh, sama troisième année. ren mooy troisième année. bon courage. de. jeunes professeurs, mm -hmm. ils carrément toujours dans le hip-hop. Des professeurs, hein, je dis. Oui. Des professeurs, des enseignants, quand j'en ai énormément. Des professeurs, mhm. euh, des enseignants du, du, du primaire. Et vous aussi, comme étudiants, euh, vous êtes tous dans le hip-hop. Euh, comment se fait-il Oui, parce que le hip-hop euh, et, et, l'éducation vont dans le même sens, puisque mm -hmm. c'est dans le sens d'éduquer, uh -huh. de donner euh, de bonnes leçons aux gens. Uh-huh. La raison pour laquelle euh, vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens uh-huh. sont, dans le milieu du hip-hop, uh-huh. surtout les étudiants et aussi les professeurs, comme vous le dites. C'est juste pour éveiller la, la population, parce que euh, y a beaucoup d'écrivains. Nous aussi, on est des écrivains, mais on, on, on, on, on passe nos messages dans la musique. dans la musique pour essayer d'éveiller la population. a ngi wax ni xarit dafa jafe. oui oui xarit dafa jafe oui. pourquoi nga bon à chaque fois boo xoolee euh, nit mun na dem ba tollu benn niveau mu nekk benn star comme vous léegi euh, mais xarit yi mu ànd ñu mu amoon depuis euh, enfance. Mm-hmm. bien vrai que du doon benn changement mais pour mu jot ko day metti quoi. Mm-hmm. te tamit dañoo gis ne léegi àndandoo moo gën a bëri. Mm-hmm. tey El Nino bu démb. ak El Nino bu tey. peut-être personnalité bi mun na changer. mais la personne en tant que telle. du changer du changer. mais gars yi nañ jàpp na ok El Nino de. bi mu doonee star dafa am beneen xarit yu bees. Mhm. du genre quoi. Mhm. te tamit dañuy jàpp ne liggéey par exemple su may liggéey damay liggéeyal ñu professionnel. Mhm. du nekk ak ñi ma nekkoon à temps temps xale. mënu ma jàpp ne kii maa moom ñoo euh, fowandoo. rek dama ko war a jël pour mu nekk sama coté liggéey. booy liggéey da ngay liggéeyal ñu professionnel. ci genre ambiance boobu noonu. laa jële ma ne xarit dafa jafe léegi parce que. Euh, àndandoo daal. gars yi duñ comprendre quoi waaw voilà duñ la comprendre. Ah. duñ la comprendre. Ah. te euh, liggéey bi moo ko laaj. mais tamit des fois tamit il faut que ñu revenir à l'arrière mhm. pour penser à à nos amis à nos frères et sœurs way d'hier mhm. nos amis nos amis euh, euh, yaa ngi wax ni balaa ngay xaw ma lan nga pour balaa ngay xam maay kan waaw soo ah. bëggee xam dëgg-dëgg soo bëggee xam dëgg-dëgg da ngay dellu da ngay xam dëgg-dëgg ki nga doon dëgg-dëgg pour nga mën a xam dëgg-dëgg koo koy kan parce que c'est c'est c'est c'est l'université qui fait ça. oui oui oui. ah oui. mais université gisuma fa kenn ku fa jàpp ñëpp dañu sew. <laughs> xanaa du ngeen bu baax. non dañuy lekk sax mais euh, affaire yu bëri quoi. musique bi cours yi ak les autres affaires. affaire yeneen affaires yi. yeneen mais étudiants yi dañuy jeex tàkk. waaw <laughs> ah, mooy loolu ah. ku gis et puis aussi rang ci bu gab bi aussi du leen jeexal. waaw rang rang bi ci gab bi. day tax 4 heures du matin mooy loolu quoi. 4 heures du matin ngeen dem rang ci gab bi <laughs> loolu. di xaar na xaalis bu wàcc na wàcc na loolu tam da leen di loo de ah. waaw waaw waaw rang restaurant bi tam da leen di maigrir loo de lépp la ñuy rang université égal rang université égal rang <laughs> pour def añi da sa bourse da ngay rang balaa ngay dugg ci envie bi rang <laughs> université c'est difficile en tout cas tous ceux qui sont sortis de l'université Cheikh Anta de Dakar c'est mm grands parce que moi j'ai reboursé chemin ah, okay. j'étais euh, orienté à la faculté de droit, de droit. Euh, je suis arrivé j'ai vu <laughs> euh, Je suis arrivé, mhm. j'ai vu qu'il y avait trop de monde. Okay, okay. J'avais pas accès à l'amphi, je suis retourné chez moi. Fifi. Le deuxième jour, j'avais pas accès. Le troisième jour, j'avais pas accès. <laughs> Euh, arriver, quitter pour quitter Rufisque, prendre le P15, s'arrêter à, à la place de l'indépendance, reprendre le P10 pour aller à l'université. Après, voilà, tu arrives toujours en retard et puis après, c'est toujours rempli. je me suis dit écoute je vais faire autre chose. ah ñi fa des nag ñoom ay guerrier lañu quoi. comme sama gars ah boobu ah yow guerrier nga quoi. big up sama gars ah. <laughs> Euh, euh, bi je suis en compétition. waaw je suis en demi-finale. Uh-huh. compétition Happy Vague dans une télé de la place. Uh-huh. waxal télé bi amul problème. oui DTV. ce soir même ce sera au CICES. E uh-huh. oui ce soir e euh, les demi-finales. waaw bëgg naa aussi tamit euh, maa ngi pare sama sama mixtape maxi ah, ah, ah. sera disponible le 25 décembre incha allah. incha allah incha allah bon courage d'étudiant. ok merci beaucoup bon courage El Nino. merci beaucoup El Nino El Capo. El Capo El Capo. El Capo. El Capo. <laughs>